alaykum yéen médiseetal Sahel Network TV Aïcha la waa rek ci biir kër gi tey nag dañ ñëw fii ci Fana Fana Trading ma ne luy yëngu laa wax business profile képp koo xam ne am na lu muy yëngu rek dinaa ñëw seeti ko léegi nag day fan yi dañ génn ci biti di waxtaan a gaay yi agsi faana faana nañ dugg ci biir waxtaan ak Mr jeg ay ñu dem asalaamaaleykum comme nu ma leen ko waxe ci ndjel ben rek legui dugg nañ fi ci Fana Fana Trading damay waxtaan ak Mr djeng mom mu wax ñu ci walum stationery shop bi. maaleykum salaam ma ngi tudd Pa Modou djeng fi may Fana Fana Trading. wa man inspiration bi nak mu ngi jógee ko ci suma mun suma parents because man suma pa ak suma yaay yëpp ay jula leen woon dañ ko oyé time bu man time bu jula leen dan oyé so. mu nekk ci nag nekka suma yaay di gis ni moo doxalee may koo jàppale ba am inspiration bi nag màggaale ko so ma magee nag te bu ma jeexalee school so ma ñëw into business man tamit loolu ma dugal si business na maa ngi ko commencé 1994 jox sotle rek before di take over man ko sotle rek before di take over na dañ dee jaay office materials dañ dee gën a jaay school and office materials demee si ay cartridges ay laptops computers ak anything that deals with office daal loo xam ne daal jumtuwaay office la daal anything daal loo xam ne dañ ko soxla si office daal dañ ko dee dañ ko dee jëf dañ dee jëflante loolu waaw supplies nag lu si ëpp yëpp si government dañ dee am nag supplies through the private sector waaye government leen dee gën a diilal maanaam nguur gi leen dee gën a daal ko si loolu leen duggee balaa ñu am bitik xam nga nekkati nekkati di soox bi am gis ne connexion boobu boobu ba tey mu fa ñun ak offices yi especially government direct offices direct supply from government hmm. waaw yombul nag yombul because suñ most of our main suñ challenge yu gën a mag maanaam suñ texa texa yu gën mag mooy fayee ko jot suñu xaalis payment yooyu moom suñu problème la dafa mel ni am soblaay tamit léegi problème la di ko soo ko seetlee fi mu nekk dafa mel ni gan ñi dañ dominer marché bi maanaam gan ñi yi leen léegi na jëflanteel waaw waxuñ ne nag gan yi moom daaxuñ leen sax di ko ñun tamit ñu ngi am ay gan yu nekk ci biti waaye daal baaxoon na tamit ñu gestu seen doomi réew mi parce wax dëgg yàlla xaalis bu nguur gi di dugal si dëkk bi fii si business lu si ëpp yëpp daf di génn loolu moom suñ suñ teexa teexa jafe ñoom business tamit pour jot suñu xaalis tamit daf dee nekk problème loolu daal ñaar yooyu daal mooy suñu jafe-jafe yu gën a mag. moom mbas bi moom daanaka ñëpp ñoo ci am problème gannaaw ñu jaay dunda ak ñu jaay maanaam sanitary materials yooyu daal fu mu nekk nii su dul ñooñu. foog naa ne Gambie daal ñëpp am problème spécialiste si jula bi parce que ñu nekk soo ko seetlee comme ni nga ko waxee aussi tëj na liñ daan soxla fu mu nekk xëy na soxlaatuñ loolu ba pare fu mu nekk government maanaam nguur gi xaalis bu bëri bu mu doon jël di ko dugal si office yi ak yooyu mu ngi ko dugal léegi si si mbas mi soo jafe-jafe bu bër bu mag a mag la daal si si ñun bu mag a mag sax. waaw bare na because soo waxee loolu léegi-léegi am xam nga rek nit moom dafa fiir soo waxee ñii xëj na bàyyi ñëlee ñëlee mun nañoo gisee ne xëj na waaw tuddloo leen mun naa nekk problème waaye daal government daal dañu dee dimbale ba pare private sector bi dañ leen de dañu dee dimbale kon xam nga soo bëggee tudda mun ngaa tudda ñii bàyyi ñëlee te wax dëgg yàlla ñëpp a dee ñu bëree dee defin te doo mun a tudda ñëpp waaw ñu bëri daal ñoo dee jëflante ñun waaye mboolem koo xam ne mu ngi jëflante ñun rek ñu ngi la see gërëm ne yaa ngi ci biir question bi nii waaw waaye soo tuddee ñii mun naa am nga xam nga fàtte tuddaloo ñëlee te dafaa nekkaat problème waaw soo tuddee ni tudd la ne daf leen nekk te ñuy jëflantee ñun fii moom wax dëgg yàlla ñu bëree de ñu bëree ñu dee jàppale waaw ñu bëree ñu dee jàppale dégg la soxla neen jàppale ñu bëri nag parce que wax dëgg yàlla comme ni ma la ko waxee Gambien nekk nii wax yàlla gan ñi sonal neen leen parce que soo gisee Gambien ñu bëri ñu daan dimbale au bëri ñu daan jëflantee ñoom léegi dañ ko yóbbu si gan ñi soo loolu moom suñ jafe-jafe bu mag a mag la daal ñu ngee ñaan daal gars yi ñu xel trop daal parce que waaw defe ne doomi réew mi daal wax dëgg yàlla gisatuñ seen bopp daal si liggéey bi waaw wax dëgg yàlla ndimbal bu mag bu ñu soxla mooy di ñu jox ñu soblaay maanaam di ñu jox di ñu jëndee si ñun loolu mooy ndimbal bu mag bu ñu soxla ba pare tamit finances tamit maanaam koppar pour def suñu liggéey daf lay jafe parce que léegi léegi yow sa nga amoon yëpp da nga jël soblaay ko jënd bagage wala bagage yi nga am nga joxe ko amaat yeneen yoo xam ne yaa ngi ko war a joxe soo pour am xaalis wala am bagage yooyu daf lay nekk jafe-jafe loolu suñu jafe-jafe la te maanaam banques yi ñi nii dee dina dimbale tamit dañ fa dee am problème because léegi léegi liñ laa laaj on a ak time bu ma war a jël pour nga mën a am xaalis daf day jël time parce que xam nga ku soxla léegi ñu ne indil ñu lii léegi nga win tenda wala nga win xam nga ñu win cotation war a soy bu bagage ñu xam nga dem si banque bi ñu laa laaj ay kayit wala de fekk lii lu taxaw la xam nga loolu tamit daf day nekk jafe-jafe waaw mbiri xaalis daal pour finances ak supply daal mooy suñu problème fu mu nekk waaw loolu daal jafe-jafe ma leen woowee employé sax naa dama wax ne am ñu fee jàppale rek parce que am na si ay jarbaar yoo xam ne ñoo ma dee jàppale fii understand parce que liggéey bi tamit yokkee na doo ko mun a def parce que doo mun a nekk fu nekk xam ne ñoom ngaa yónni dem di la am yeneen errand suñu laa doxalal ak yooyu waaye sant yàlla ñoom daal ñoo jàpp daal parce que man léegi bala ma ñëw fii daf te xala naaj am nga xam ne dara ci biti du fi nekk ñoom laay oo ñu jàppale ñu so am ñu fi nekk di ñuy jàppalante daal incha allah success story bi mooy maintenance bi parce que twenty something years nga nekk ci dara even soo ci amul li nga bëggoon yëpp success la because benn weer wala benn fan wala benn at rek nga nekk ko ci dara rek problème la ba pare di success story tamit mooy nit ñi ngi see interact with ama sax ama ñoom a good rapport yàlla dimbale la ba xëj na am nga ci tur bu rafet soo ci amul dara it tamit am nga ci tur bu amuloo si tour bu ñaaw ba pare am nga si ay contact ak nit ñi xamante bi ak yooyu on yooyu yëpp xam nga success la course affaire yi moom is not àddina si yëpp du affaire yi xëy na am alal yu bari wala am teg yu bëri waaye nit ñi nga amanteel di interact ak ñoom ba pare make si a name maanaam am si tour boo xam ne soo si amul dara tamit am nga si jëflante bu rafet sa diggante nit ñi loolu tamit sant yàlla la daal waaw Fana Fana moom yomb na trop ni Fana Fana moom mu ngi si diggi xoli Banjul bi ñu ngi nii opposite polyclinique soo jógee ko Banjul soo rombee juma bu Independence rek yaa ñoo am si bori pharmacie bi su fekkee yaa ngi jógee ko si biir dëkk bi biir Banjul soo rombee BCC rek yaa ngi am on the on the on the on the on the left si sa càmmoñ hmm. soo moom mu ci si digg tali bi foofu moom soo ñëwee rek soo laajtee wala soo xoolee si boor bi rek di nga gis faana faana wala soo laajtee rek ku ne faana faana rek dinañ la ko wan moom ñëw fi yomb na lool. waaw ñu ngi am ah, Facebook page fana-fana trading at yahoo dot com ba pare suñu téléphone number si tamit 991. 3803 then 391 3803 691 3803 799 3803 waaw mooy suñu nombre daanaka ñu ngi di la network si yëpp daal. waaw di leen njëkk a gërëm yéen si seen si seen initiative bi maanaam seen tànkay rafet yi ngeen dox parce que lii moom su ko suñ la am di lifin promotion bi ni kon waxtu bi xëj na business si Gambie yëpp dem na si kanam parce que lii leen soxla fu mu nekk nii. waaw di promote suñ di ñu wane waaw di ñu wane leen soxla parce que wax dëgg yàlla fu mu nekk nii moom business si Gambie sooxee na trop waaw wax dëgg yàlla waaye di ñaan tamit ñu dimbal ñu gën a dimbalante daal ñun ñuy liggéeyante parce que Gambie wax dëgg yàlla nasax ne nasaxal neen suñ doomi réew mi parce que fi mu nekk soo xoolee doole bu ñu jox gan yi li ñoo deflante gan yi yëpp ko deflante ñu ni waaye gan yi daal fu mu nekk nii daal jox nañ leen doole waaw jërë ngeen jëf ñu leen seetaan ñu ngi leen di tàggu di leen wax ba beneen incha allah